yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadin irham jamii al waraa yaqiini illa al jannaati ma laysa yuhmadu rasuulun kariimun bay tanaasaara ahmadu يقيني إلا الجنة ما ليس يحمد رسول كريم بي تنازار أحمد وخان الأسى والموت توال جعل سرمدا رسول سفيع في البرايا محمد محمد المختار لا خلق مثله لأمداهه قد حوت والحوض أحمد أتاني بإسن الله جمت حبات بشير عبيب والأسى خبل محمد لقد جاءني في البر سبخ نبي الورى على كل مخلوق به الخلق تسند مديحي رسول الله لخاتمة لبي وليليس يندا رواس مفند ودادي لربي سا سكور على النبي رسولا كريما ميس لا ليس يولد لقد مان من سن المخفى محمدا يحاكي وليدا خات مدى أو سيولد دهاني إلى مدحي شفيحي محمدا أماني ومن لم يهوني فهو يطرد علمت لدى الأبرار والبر والملا بأن المقفى سيد الخلق مفرد إذا ما مدحت المستوى نلت فجأة أكون بها بسرى لمن دام يسجد مدحت الجواد الباسل البحر مسبدا ومن جوده علم وأمن وعسجد عيد سما سا روسير سرمدا بدا مخجل القبل لسي ليس يسجد كريم سواجا تنخاد للمنى ببسر وتامين ومولاي أحبد ساما أبدين الذي دينه الهدى وخاب الذي رب الورى ليس يحبد شكوري لربي بم فداه محمدا عليه سلام الله ما دام يحمد ودوه إبا السيدا ندر مخافة لدى الله مكتوب دواما ولا خروى وجول دا ترا إلى خير سنات ولم ينعني من يخسد الحرب واللحوى وقايات باخ لم يسل خير حافس حمتني كما تحمل لسي قلبه يحوى ولوجي في حسن العفيس الذي له بلا سركة كل كفى من عواسه وعيت له من توس له القلب من خدا يروم الهدى بلا سم العفو والصفوى هذه الأبيات من وفي سها أدخله الله تبارك وتعالى في إذن الذي من دخل في نجاوى من من عذابي ومن خدبه قد هنس البيت أول في الغفران لجميع سنوبي وفجأة البسر وملازمة الأمن والسواي والبيت ثاني في الخروج من السك إلى اليقين وانصراف المكاره أبداً والبيت سالس فيه النجاة من الأحداء التي أثار سكورها في كتب التصوف والنجاة من درر الجبابرة والبيت رابع في تهليم بأن الله قتل سيدان خايلي هذه القصيدة أتعذر كل شيطان خائفا منه لسالك وليقص ما لم يقل سبحان ربك رب العزة حما يسير الحمد لله رب العالمين ña xam yàlla ña xam yonnen ca baawoon ba tey kenn jaaragul fa mu jaar boroomam ña xam yàlla ak ña xam yoon neen ca baawoon ba kenn jaaragul fa mu jaar boroomam te wax ji moo ko wax ba ko noon yooyu bokku di ngat wax ji moo juyoog boroomam ci géej ga la lambe yàlla ba fekk muy géej mu tànq ca léeri xëy bu ya naan ci géej ga la dàqe seytaane ki gaayam bu ñuy maaj muy taxaw faratay boromam ci géej ga la bamba tijjee ndambi xam-xam ba faf yor alluway xalim ak boromam ba àgg ci yàlla àgg ci ngeen ji yonnen ñu soppi ko soppi léppam muy boromam saxal foofee ji xaari bakkan ci ay at di boole tëgg ak julleet wéetal boroomam ba fab say beli suukar far ci yonen di moom muy moom ci baatin cay boroomam ñu bokk ko fol te fol ko ngërëm mu fab kuñ ñu turu yi jox mu jox boroomam di kenn ku ñëpp xam foofee ci baatin tubaab ya di bañ sëriñ sa diyem boroomam mu fab dib janti tiim jëpp duniyaa di taalif téere yi sellal boromam malaaka ya seere pal gamam fa diiwaan muy fal ay xutbu yi dey ak boromam balaa la fa am ci pi aras ci baytin ñu di soog daam te mooy jaay si boromam te mooy wutaatu yonen far ci kaw suuf mbootam kun ci lépp lu sob mu lakk ngërëm ci zaahir ak ci baatin maqaamaam fawqa mboolem ñooñ boroomam Sëriñ maanaam ni mes bu génnee xam boromam ku tey wey te aw wa feesal cay leeram ba fab di duyal moromam ku dex na xam ndox daf bu yeewul te watum ndox lewet na te wex ca biiram ku saggan sanku faw te labto duy te doo set doo setal doo xam boromam melay bàmbaay ngi waaju xamul na dégloo te roy roy luy jikkoom ya moo xam boromam di jox aji laaj di dimbali ay dëkkaay leem du tooñ te ku tooñ mu jéggal ngir boromam di may ku ko bañ di woo ku ko foñ di neexal safoo ku ko soof ku dul kuy mooy boromam di faj aajo xam lay mbot di seexal di génn guru ci toskare jox boromam di fekk ku ñëpp xeeboon ay cosaanam mu fal ko ba ñëpp faale ko ma boromam di fekk ku mel ni man jàngul liggéeyul mu seexal sol ko xam-xam mook boromam di fekk murit bu dof bu tilim ferul baa mu fóot ba mu set dofal mborom boromam melay kayaag melay biiram dëppoo nañ du digle lu bon du déglu ku dul boromam du moy ngir tiit du bew ngir mbég lu rëy rëy du bëgg du bañ du faale ku boromam du jàq du rët du jaaxle du fàtte yonent mas tawat loo xew ci ku boromam yaa maalikal mulki yaa man jalla